dem soirée samedi bi parce boobu. ayca ba xarit baa ngi ne. nga ne loo loo loo wàcc le douze février. tuuti waaw le douze du yomb nag. ndax dañu naan sama yaay gaan jaay doole yu bëri tey non violence ñëpp xamee nañu ko ci sama waay ji nga xam ne daa dugg takk ndigam def gàngooram dëgg du neex jëy si ñu ne déet mu ne jàmm lañu wootee. kon yow boo wootee ñëppay ñëw soo wootee ñëpp dañuy bàyyi luñ jàppoon dikk ñëw teew lii laa wax. ci loo wax tubaab bi ndànk bi patoo numéro 2 loo ko dara wax. yee doo day metti Sénégal rek xam nga nag may ko dara may ko dara. Azimla ah, ñoo ngi doon. gannaaw allez. Ah, ah,